alhamdulilahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmain mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu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 amaan nañ mbégte lool ci dellu siwaat ak yéen ci jotaay bi di nuyu soppee baax yépp moo xam ñi ne ci biir réew mi la wala ñi nekk bitim réew ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax di bég ci ni ngeen di àndee ak ñun jotaay bi donte waxtu wi léeg moo xaw a teel lool waaye am ñuy def seen yitte def ko mu nekk seen bindi jàng ni ma ko baaxoo waxe buñ noppee ci loolu itam ñu ñëw yëglu wane ne waxtaan wi ñor na leen teg ci seen i ndokkeel ak seeni i soññee yal na yàlla yàggal leen te yàggal ñu def ñu ñu doon dëgg-dëggi jullit yoo xam ne dañuy dund seen mbiri diine def jàmm ci réew mi def ko ci réew yi ñu wër ndax jàmm rek mooy li am solo ndax lu waaye am te amoo jàmm danga ko fa bàyyi wuti jàmm wala doo ko tal sax nag kon yal nañu yàlla may jàmm may ñu ñu doon ay jullit yoo xam ne seenu jullit day sell ndax daa mel ne wax ne ab jullit laa ci jamono ji moo gën a yomb doon ab jullit te sellal sëg njullit yal nañu yàlla dimbali ba ñu sellal ko te sellal ko mooy tàmbulee fi yàlla tàmbuleelu waaye yam fi nga xam ne fa la ab jullit yam fa nga xam ne li leer nañ ñi ci boppam ci li dagan da cay nekk waaye li araam mu moytandiku yi leerut ci boppam mu moytandiku ko yooyu mooy yi nga xamante ne suñu bindi waxtaan sax tolloon na ci di moytandiku yu lënt yi yi nga xam ne leerut te bari na nag yu leerut ci penc mi yoo xam ne leerut leerut waaw léeg sax ay baat lay doon yoo xam ne doo xam lu muy tekki waaye daal jamono dana jékki-jékki rek ñu di ko mbambak di ko wax yal na yàlla yokk ñoo defal jàmm ñun ñëpp waxante bi ci pénc mi yit jëm ci euh, léeg diine wala ñàkk a déggoo wala ñàkk bokk fuñ péete loolu moom dafa mel ne weesu woon nañ ko ci at yële kon nag rek waaye ñun ndaw ñi nga xam ne léeg ñu yor kàddu yi mbooloo yi bokk te doon ay melokaan yoo xam ne foofa dañ koo war di wone lu ñu wodd suñu kàddu doyut te itam lu ñu maandu ci jéem a àtte nit ñi ci àdduna doyut yal nañu yàlla dimbali ba ñu comprendre noonu mbir yi te di ko saytoo noonu di ko doxale noonu ndax bu boobaa jàmm rek mooy li nga xam ne moo ñu ciy ñeel suñu jotaay bii di Al Misbah maa ngi doon waxtaane yu dagan yi yu xaraam yi yi nga xam ne dañ koo sip noppi woon naa ci yu xaraam yi wala boog ci yu dagan yi ndax xadis baa taxoon yonent bi ne woon li dagan moom leer na naññ li araam leer na nañ ma waxoon la ne yi dagan xaajaloon naa la ko ba muy ñeenti xaaj wala juróom yoo xamante ne ci loolu laa doon waxtaan ak woon ci ñetteelu xaaj bi te mooy wax la ne la li dagan mooy li nga xam ne suñ boroom moo ko daganal waaye nag mooy li gën ci ñun li mu tere itam mooy li nga xam ne loolu rek lañu ñu war moytandiku te loolu mooy li nga xamante ne mooy lu araam li yasaluunaka maasa uxilla lahum xul la lakumu tayibaat buñ la laajee ne la lan lañ daganal ci yéen ci ñoom na leen wax ne leen liñ daganal ci yéen daal mooy yi nga xam ne moo gën ci yéen moo yu teey suñu jotaay boobu waxoon naa ci ba agsi ci wone ne euh, li dagan daganut ci jaam bi mu di ko jéggi di ca ëppal laa yajuusu li abdin wala lil abdi an yuxarrima ala nafsihi say an xabaaha allah daganul ci jaam bi muy araamal ci boppam lenn loo xam ne suñ boroom da koo daganal ci moom nit daal mën naa bàyyi dara bàyyi da koo bëggut wala da koo jubuwut waaye nag du àgg ci di ko araamal déedéet lu yàlla daganal kenn du ko araamal takk soxna yàlla da koo daganal waaye dagan la ndigg maanaam digleeg daganal la du digleek forcé bul jàpp ne yow jamono dana yàqoo yàqu ba loola doon loo xam ne yow da koy araamal déedéet yi araam daal tama waxoon la ne leer na lu yàlla euh, lu yi dagan te yàlla tama waxoon la ne leer na muy suñ boroom daganal kenn du ko araamal lu dul ne loru moo tax jaaroon naa ci suñ boroom wax ne yaa ayyuha alladina amanu laa tuxarrimu tayibaati maa axala allahu lakum wala tactadu inna allaha laa yuxibu almuctadin wa kuluu mimma razaqakum allah xalaalan tayiba wattaqu llaha alladi antum bihi muminuun suñ boroom nee na yéen ñi nga xam ne dangeen a gëm bu leen araamal yu yi te daganal ko ci yéen bu leen ko araamal bu leen jalgati lekk leen ci li leen yàlla wërsëgal muy lu lew doon lu teey te ngeen ragal yàlla ndoolu jaaroon nañ ci ci bind bee dañ ci doon jaaraat jaaru jàpp mbaxana biñ noppee ci loolu waxoon naa la tuuti ci yi nga xam ne dafa lënt mooy yi nga xam ne daane ci diggante xaraam ak dagan te mooy yu lënt yi loolu itam dafa jara bàyyi xel jaam bi war cee bàyyi xel war koo moytandiku kemt laayal kàttanam yooyu nga xamante ne nii yu lënt la doomu aadama yi léeg-léeg wuute ci ñi ne dafa xaram ñi ne dafa dagan nga xam ne am lënt cay mujj dugg ca wuute ya te kenn indiwu dalil bu leer buy tegtale ne lii dafa xaram kenn indiwut tam daliil bu leer buy tegtale ne dafa dagan nga xam ne dañoo yem ci diggante bi ñi ne araam na ñi ne dagan na coow li ne kur li gën ci jullit bi bëgg a mucc mooy mu moytandiku loolu ndax daa leerut ci boppam kon moytandiku ko moo gën boo demee ci irwaahu nadim téere la boo xam ne menn mag ki réew mi mu ñuy wax Cheikh Mouhamad Lamine jóob Dagana moo ko bind yal na ko yàlla yokk yërmande di ci nettali dunduk Serigne Touba da cay wax ne benn bi sëriñ bi dafa mas a toog sëriñ Touba am benn naar boo xam ne kilifa la woon gu jóge gànnaar toog ak moom ba mu yàgg rek mu génnee jumtukaay gi nga xam ne moom lay tuxe nañ ma baal daal di jafal tàmbulee tux Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana nee na Serigne waxu ko dara. naar bi di tux ba mu yàgg mu ne ko yaa cheikh maa taqulu fi hada loo wax ci lii waaw sëriñ bi yow loo wax ci li may def sëñ tubaa ko if al wala tas al defal li ngay def rek yow te bañ cee laajante mu ne ko mënuma cee ñàkk laaj ndax wuute yi da cee bari boroom xam-xam yi ñenn ñi ne nañ tux dagan na ñenn ñi ne nañ tux araam na wuute yi dafay da cee bari Cheikh Mame Lamine Diop Dagana ci téeréem boobu nee na Sëriñ Tubaa ko kon yow léeragut ci sa bopp ci ndax dafa xaraam wala ndax dafa dagan mu ne ko déedéet am lënt la kay ndax wuute gi da cee bari mu ne ko yow kay loolu téere bi gën a ndaw tey jàngale fiq moo la tontu woon muy lax dëri yu borom téere ba daa waxoon ne wala yaxillu mu mukallafin an yafala filan xatta yaalama xukmallahi fiihi daganut ci kenn nit koo xamante ne kàllafe na muy jëf jenn jëf lu dul ne la muy jëf da cay xam la ca yàlla àtte kon yow donc moo xam dafa xaraam moo xam dafa dagan waaye bàyyi ko rek daf laa war ba ba ngay xam li ci yàlla àtte yow kon koo dégg mu naan lii moom leeru araam ak dagan gi dañ koy wax rek waaye kenn xamul daa araam kenn daa xamul daa dagan moom sariya da ko naan yow da nga ko fanaan yël banding bàyyi ko yow ba ba ngay xam ba xam dafa xaraam wala dafa dagan nga door koo jëfandikoo boroom xam-xam yi dañuy wax ne moytandiku yu lënt yi day dimbali nit ci mu fekk diineem ci mu fekk diineem day dimbali nit ci mu fekk ab deram ni nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ko ci xadis ba ma jàngoon fa manit ittaqa subhaat fa xaddis tabraa li diinihi wa irdihi nee koo xam ne moytandiku ne yu leerut yi yu lënt yi kooku day rawale na diineem rawale na ab deram boroom xam-xam di ci teg wax ne gayra anna mutasaabix ala darajaat fa xad yakuuna xariban min alxalaal ida daat daruura ilayhi wat maan xalba li fiilihi ñu ne yu lënt yi moom it dafa am ay ay niveau yu mu am ci ñu jëfandikoo ak ñu bàyyi ko mu ne léeg-léeg muy lu lënt waaye nag jege lool ak dagan waaw ci lay yi ñu indi daal ci di ko dàq ak di ko samp lay yi ko samp moo gën a dëgër bu boobaa nit ki jëfandikoo ko ci darooriya te fekk ab xolam dal ci ne li muy jëf moom daal jàpp na ne lu dagan la nee na loolu mën naa nekk nee na itam léeg mu doon loo xam ne lu jege lu araam lay doon xariban min al xaraam ida lam yakun hunaaka daruratan ilayhi wax xadata fi sadri sakkun fii bu fekkente ne euh, amut sikki sàkk ci ab dënnam waaye nag yooyu yëpp bu ci amee rek ala kulaalin bàyyi yu lënt yi mooy li nga xam ne moo gën a yell bu waxee ne jëfandikoo ko ci lu mënta ñàkk loolu dafa mel ne sariya indi na beneen àtte boo xam ne mooy layal loolu ci jëfandikoo mbir ci lu mënta ñàkk ndax dañuy wax ne a daruraat allati tubihul maxsuraat maanaam nit ki nga xamante ne ñàkk pexe la da koy daganalal mu jëfandikoo yoo xam ne bu pexe amoon du ko jëfandikoo loolu léeg-léeg ñu wax ko nga xamante ne dana lekk loo xamante ne dafa xaramoon waaye circonstance xiif bay bëgg a dee moo ko yóbbee mu lekk medd ma ak yu demee noonu moom la alxuraan waxoon ne fa mani turra gayra baaxin wala aadin fala isma alayhi inna allaha xafurun rahim koo xam ne dafa loru te def bàkkaar wala jalgati taxut mu jëfandikoo lu mu jëfandikoo nee na kooku bàkkaar amu ca suñ boroom ab jéggalekat la ab yërëmekat la yal nañu boole jéggal te yërëm ñu kon bunt boobu buñ koy xool dañuy gis ne kon yi araam a ngi noonu leer na yi dagane tam mi ngi noonu leer na yi ne ci diggante bi mooy yi nga xam ne dafa lënt fa in lam yakun fa in lam yakunil mutasaabix xariban min xalaal aw xariban min xaraam kaana wasatan baynahuma xuma huwa ma kathur fi xilaaf bu fekkente ne mbir mi dafa lënt dafa lënt lënt gu ëpp nga xam ne boo xoolee côté bii mu mel ne lu araam côté bii mu mel ne lu dagan ñaari yi ñoo yem képp ci diggante bi loolu daa bokk ci lënt-lënt yi nga xam ne dañ ko faa war a bàyyi lënt-lënt yooyu daa bokk ci yi nga xam ne bu tollee foofu dañ ko faa war a bàyyi buñ ñëwee nag ci wàllu jëfandiku ba indi li ñuy wax dagan indi li ñuy wax xaraam indi li ñuy wax lu ñu sib dafa mel ne loolu buñ ko xoolee day am li ñuy wax ay darajaat day am ay darajaat yoo xamante ne boroom xam-xam yi séddale nañ ko ci ñeent ba ci njëkk mooy li ñuy wax darajatul adul mooy ñi nga xam ne ñoom lañuy wax ne ñu maandu ñi garaat la bu nit di takk ca suñ borom ñu ne ñooñu ñooy ñi nga xam ne yatrukuunal muharramaat kullaha wa yaxtasiruuna ala al mubaaxaat mooy ñi nga xam ne yu araam yi moom lépp lañ bàyyi waaw duñ jëfandikoo dara dara dara lu araam lépp lañ bàyyi waaye nag yi daganit it jëfandikoo wuñ yëpp yi dagan sax dañ ciy gàttañ lu waaw xaabaaba luñ ci hmm. waxumaa nag kon bay dugg ci yu xaraam yi ndax yu dagan yi jeexal ko ba mu jeex tàkk nga cay xaabaabal man naa tax nga dugg ci yu xaraam yi hmm. waaw la mbokk ma ne woon takk ñeenti soxna doy na sëkk wala sax ñett ndax ku àgg ci ñeent léegi tey boo muy tuut nga sartaagal dugg ci yu xaram ya kon nag bu mënta ñàkk sax ñett ya doy na far <laughs> kon al adul mooy ñi nga xam ne ñoom kon dañuy bàyyi yu xaraam yi yépp waaye nag gàttañ lu ci nga xam ne dafa dagan beneen étape bi ci topp ña ca ñuy dund loola mooy ñi ñuy wax assaalixiin assaalixiin daraja la ñoom la wax ñu baax ñi ñoom it wahum yatrukuuna al mutasaabihaat xawfan min al wuquuci fi l muharramaat nee na mooy ñi nga xam ne dañuy moytandiku yu lënt yi yu leerut yi dañ koy moytandiku dañ koo bàyyi ndax ragal mu dugal leen ci lu araam kon gis nga ku njëkk ki moom yu araam yi lépp lay bàyyi ba noppi yu dagan yi mu def ci ndànk ku ñaareel ki yi nga xamante ne dafa lënt yépp lay bàyyi yépp da koy bàyyi far waxumaa yu araam yi de waaye lu maanaam yu lënt yépp lay bàyyi ndax bañ mu yóbbu ko ci yu xaraam yi ku ñetteel ki mooy darajatu saalisa mooy darajatul muttaqiin mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu ragal yàlla ñi wahum ladina yatrukuuna al jaaidaat xawfan min an tuaddi bihim min an tuadda bihim ila irtikaabi shay'an min al muharramat mooy ñi nga xam ne dañuy moytandiku yu dagan yi yépp la bàyyi ngir bañ mu dugal leen ci yu xaraam yi seetetetet nga xam ne ñoom liñ ne dafa dagan sax duñ ca xaabaabal dañ koy bàyyi far di ko moytandiku ndax jàpp ne ku jeexal yu dagan yi mu yóbbule ci yu xaraam yi mooy ma waxoon léegi xadis boo xam ne saxaaba bu ñuy wax nu maaja nett li nañu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ca wax ju am solo wax ni laa yabluqul abdu darajatul muttaqiin xatta yadaa maa laa ba'sa fii maa laa ba'sa bihi maxaafata maa bihi ba'sa ci nee na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ki du àgg mukk ci daraja yi ñu boole ko ca muttaqiin yi ñi nga xam ne dañoo ragal seen borom subhaanahu wa lu dul ne day bàyyi yi nga xam ne garaawut maanaam yi naan yii yii de moom dara nekku ci da koy bàyyi ngir bañ mu yóbbu ko ci ya nga xam ne dara da caa nekk maanaam tey fi mu ne da gis ku ne la jox loxo jigéen amoo ci bànneex loolu dara nekku ci bu fekkente ne amoo ci bànneex koy garaawut waa ji ne man dama koy bàyyi ndax damay far bañ mu jural ma ma am ci bànneex ok nangam moom lekk ko dara nekku ci bu fekkee ëpput mu ne damay far bàyyi ko man bañ caa lekk dara ndax bañ mu dugal ma ci Euh, ma lekk ca lu ëpp nett li nañ ne Seydina Abu Bakrin radiallahu anhu daan na wax ne kunna natruka sabxiina baaban min al xalaal maxaafata an naqaa fi baabi waaxid min al xaraam nee ñun daal daan nañ moytandiku daan nañ bàyyi lu ma juróom-ñaar fukki bunt ci jëfandikoo dagan ngir bañ rekk mu ubbil ñu benn buntu jëfandikoolu xaraam waaw kun la wax te kun wala dil rek la wa kaana allahu doy na tegtal ci loolu bu ñeenteel bi te mooy bi mujj ci dara jaat yooyu mooy darajatu siddiqin al muxarrabin mooy ñi nga xam ne ñoom lañuy wax ñu dëggu ñi mina nabiyina wa siddiqin ñii ñoo ci topp kon bu yonent yi jàllee ci dara daraje nekk yonent garaat la garaat ba ca topp gën caa rëy mooy garaatub nekk nekk bu jàllee nag garaatub nekk bokk ci almuttaqiin doore ñëw bu jàllee garaatub saalixiina topp ca doore ñëw garaatub adul doore ñëw garaat yi noonu lay tegaloo min annabiyiina wa siddiqiina wa suhadaa wa saalixiin wa aduna ulaayika rafiqa moo tax wa suhadaa googu yóbbaale almuttaqiin googu ma wax nee na ñoom yaktafuuna min dunyaahum bima yasudu romq wa yasturu al awra wa yajcaluuna al axira mablaxa hëmmahum nee na ñoom asiddiqin wal almuxarabin dañu jël ci àdduna rek lu tolloog luñ mën a dëgërloo dëgëral ci seen biir man ci suturaal seeni awra waaye seen yitte dëgg dëgg la leen tax a jóg nag mooy àllaaxira mooy seen yitte foofa it la seen xemmeemteef nekk foofa lañuy xaar nga xam ne tey bu ñu jekki-jekki woon am xéewal gu baree bari ci àdduna tiim ko mu tiit loo leen bañ jàpp ne baadu lii nag suñ borom dafa ma koo këpputale rek ndax bëgg maa duma ëllëg ndax defaluma ko ci kaw suuf lu tolloog mu may xéewale lu toll nii wala sama bakkan bi moo bëgg a bew rek moo tax muy bëgg yi waaye baal ma woon ko ginnaaw xaar xéewal gële jublul sama borom fële loolu tolluwaay la boo xamante ne lu am la bu ñoppee ci yu lënt yooyu noppi ci yu xaraam yeeg yu dagan yi jaar ci dara jaar yooyu nga xamante ne indi nañ ko te mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg a sàmmonteeg moytandiku ko kenn ku ne tànn ci ban group nga bëgga a roy am na beneen groupe wala beneen atte boo xam ne mooy li ñuy wax lu ñu sib lu ñu sib al bu ñu waxee lu ñu sib nag yow mi ko bëgg a xam mooy safaanub lu ñu sopp waaw buñ ne nangam dañ koo sopp sopp mooy lu ñu bëgg ab contre lam mooy lu ñu sib al makru bu dee ci luqa du tekki lu dëddul mahbub bu fekkee ci alxuraan la ak waxiinam dañuy gis ne makro dafay daanaka jege loo xam ne lu xaraam la day yóbbu nit ci araamal boo demee ci waxi suñ boroom ji subhaanahu wa ba muy wax ci bu leen rey seen doom yi bu leen njaaloo bu leen rey bakkan bu leen lekk alali jirim wax ko ci aay yu gudd ci sóoratu isra laata aaya jee jeex dafa wax ne kullu dhalika kaana dayya inda rabbika makrua waaw yooyu ma lim yépp ay ñaaw la yoo xamante ne suñ borom bañ la jëfandikoo fa baatu makru kon yi suñ borom bañ mi luñ sib muy luñ sib waxat jaraa ala alsinati alfuqaha almutaqaddimin hada fa kaana yaqulu alfaqih minhum ala an ani sayin hada makru aw ana akra te jublu ci booba ne damaa araamal lii fuqahaa yi jiitu ya boroom xam-xam yi seenum njàngale daan nañ jëfandikoo baatu lii dañ koo sib wala lii day suñu suñu ngir sib na ko ba noppi jublu ci lu ñu araamal kon aw déggin la wuute waaye daal mooy li nga xam ni aggut ci araam waaye day yóbbu nit ci lu araam kon dañ koo sib bokk ci yi nga xam ne yu jara moytandiku la yi ñuy tere nag tam agsi foofu moo ñu yóbbu kon ba ñu dem ci li nga xam ne mooy biddaa ndax ku wax yooyu dootu soreeti li nga xam ne mooy biddaa bu ma ko bëggoon a xam le mooy lan <laughs> biddaa xëy na yaatal kook li ci am ci ay waxtaan yépp mën nañoo mën nañ caa bañ a dugg waaye mën nañoo wax rek ci baat bi ak nenn ci li nga xam ne noonu la ko boroom xam-xam yi déggee door ñëw nag ki li ñu tax a jóg ndax yi laytaay la boo xam ne daa war a leer ci bopp nit ki muy jàpp di julli di def yi ca topp bu ko defee nag mm, mbir mi man na man di def ci moom ay jeexital ndax lu ko moy la muy def da koy def rek te bu boobaa solo sa man naa bañ a bari bidaa boroom xam-xam yi dañ koo xaaj ñaari xaaj mooy biddaa bu rafet ak biddaa bu ñaaw am ñu wax ne am na biddaa yoo xam ne xasana la am ñu wax ne am na yoo xam ne sayya la am na sax ñu ñëw ci ginnaaw bi wax ne xasana moom amut yépp rekk sayya la waaw yépp a ñaaw loolu itam ci dégginu jàngalekat yi la aju bu may ñëw ci bidaa mooy mbir moo xam ne lu ñu sos la lu ñu sos buñ ko waxee mooy loo xam ne ña jiitu xamuñ ko woon ña jiitu xamuñ ko woon waaye buñ ko waxee ci nag Euh, mbiri jàng mu mel nii ñu ngi ci jublu lu ñu sos ci mbiri diine lu ñu sos jublu ci mbiri diine bu boobaa loolu lañ cay déggee indi loo xam ne daal xamuñ ko amut asl amut benn cosaan ci diine ñu ne lii kon dañ koo sos loolu lu yaatu la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne man sanna fil islaami sunnatan xasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ilaa yowmi alxiyaama wa man sanna fi l islaami sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wizru man amila biha ila yowmi alxiyaama hadis boobu buñ ko dégloo day mel ne day séddale bi ñaari xaaj ala taqsimil bida ila alxasana wa sayyi'a walam yafhamu alfahmu saxiix ala maazun su fekkee dégg nañ xadis bi niñ ko war a dégg dafa mel ni dañuy yóbbu ci loolu euh, déggin nag wala jàng ab texte ni ko Oustaz Alioune Sall di waral di waxe xam ne xadis bi wér na moo gën a yomb xam li xadis bi di tekki ala kulli haalin daal kon bidaa mooy loo xam ne dañ koo sos am ñu wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bidaa yépp ak réer la kon yépp bon bu bon amu ci bu baax amu ci am ñu jëfandikoo xadis bii ne li waxoon ne sunna xasana ak sunna sayia mooy wane ne kon bidaa xasana bidaa sayia ndax sos la wax te loolaa yóbbaale loolu su ko defee diine ji moom mat na mat gu mat sëkk laa yanbaxi li ahadin an yazida fiihi say an aw yanqus minhu say an daganu ci kenn mu di ci yokk dara daganu ci kenn it mu di ci wàññi dara diine ji lu mat la al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum al islaam diina yonent bi alayhi salaatu wasalaam tandiku loo ñu bidaa ci lu baree bare bari fa qaal ittabiu wala tabtadiu waaw topp leen waaye bu leen roy faxat ka faytum waaw <laughs> doy loo leen li ma indi ngeen topp te bañ doon ñoo xam ne dañuy sos danañ ci ñëw incha allah ci suñu bindu ëllëg bi àggale tomb boobu buñ ca noppee nag dugg ci li nga xam ne moo ci topp te moo jëm ci li dox ci suñ digganteeg bind bi ñu war a jàng jëm ci wàllu jaamu yàlla yeeg yi nga xam ne moo ci aju yal nañu yàlla boole sàmm yal yàlla boole taxaw defal ñu jàmme àdduna defal ñu suturas alaxira ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di bëgg ci ni ngeen di àndee ñun ci jotaay bi di jaajëfal bu baax Oustaz Alioune Sall mii nii di egsi moom la bàyyee barab bi mu ànd ak ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko ñaan suñ borom subhaanahu wa taala mu sàmm ko te ñaan ko mu defal ñu jàmme àdduna defal ñu suturas alaxira seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di Al Misbah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa